kii ñu fas yéene dugg ak tey ci xaswatu badrinil kubra ñu gën ko miin ci xare badar tabarakallahu yonent bi sallallahu xam na ni am na benn caravane bu joge Cham jëm Makka yoon bii nag yeblewul ndax yoon yu njëkk yi yëpp dafa yeble waaye yoon bii moom moo génn ak boppam moo tax ñu ne alima nabiyu anna qafilatan tijariya kabira qaadima min alsham fi tariqiha ila makka wa kaana ala rasiha abu sufyan bnu harb wa yaxrusuha talaatuna aw arbauna rajulan min fityaani quraysh فاعتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض طريق هذه القافلة فلبى دعوته 313 رجلا ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu xamee ne am na njëgg mu jógee suri jëm Makka te alal ji ca nekk di alal waa Makka di alal yéeféer yi te alal ja bari lool ca ne kon nag na dem kar njëg moomu pour mën a jël alal ji ndax su ko jëlee dana yokk seen doole ndax seen doole wàññeeku na ñoom jullit ñi ndax alal ja ñu amoon màkk waa màkk dañ ko këf naku nangu ko ci ñoom génne leen kon pour ñu mën a fayu ñoom itam nanu kar njëgg moomu jóge suri pour mën a nangu ñoom itam alal ja ca nekk pour mën a pour mën koo dimbandikoo yonent keroog bu muy génn am na kuréel bu takku ci jullit ñi ci wàllam saar ak muhajirun yi am na ñu ci génn ànd ak moom wax ne ne njëgg moomu nag Abu Sufyaan moo ko jiite woon njëgg mi nga xamante ni ñoo di yéefar yi mag yéefar yi mag yi suri doon def commerce Abu Sufyaan moo leen jiite woon yonent bi keroog bi muy génn ànd naak ci wàllam soor ñaar téeméeri soldaar ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ànd ak waa muhajirun lu tolloog juróom-ñett fukki soldaar ak juróom-benn soo boolee juróom-ñett fukk ak juróom-benn ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak daf lay daal di jox téeméer ak fukk ñett mu di 313 soldaar yonent bi sallallahu mu ngi génn bisu samedi tolloog fukki fan ak ñaar ci weeru ci weeru koor bi mu toogee Medina nag lu tolloog juróom fukki euh, weer ak juróom-ñeent yonent bi sallallahu alayhi wa na yoonu Badar ndax xam na ne fa la gaa yi di jaari ndax yoon woowu moo jóge suri jëm mag keroog yonent bi sallallahu bi mu dee génn bàyyi na nag Medina koo xam ne moo ko fay wuutu garde dëkk ba ba pare itam di jiite ca jumaa ja keroog benn benn silmaxa la fa bàyyi di Abdullah Abdullah ibnu Ummi Maktum silmaxa ba nga xamante ni moom moo taxoon yàlla doon ko yedd ci suuratu Abasa moom la bàyyi Madina mu jiite dëkk ba ba pare di jiite nit ñi nag ci waxtu julli badar nag barab la bu nga xam ni aw yoon la woo xamante ni tukkikat yi ak commerçant yi fa leen daan jaar pour mën di dem suri digganteem nag ak Medina toll na ci téeméeri kilomètre ak juróom benn fukk ñu ne keroog yonent bi bi mu dee génn nee na daaba ya mu war waaw daba ya mu àndal ñaari fas la ak juróom-ñaar fukki gëléem wax na ni itam gëléem ya ak waruwaay yooyu dañ ko doon awante ndax comme ñoom ñetti téeméer lañu ak fukk ñett ñoom ñëpp mënuñu war ñii dañ doon dox ñi di war wante nag dañ ko doon eh, dañ ko doon wuutante bu kii waree kilomètre wàcc keneen yéeg kilomètre wàcc keneen yéeg su ko defee léegi Eh, ñii di mën di noppalu soo noppaloo tuuti yéeg eh, dox noppaluwaat tuuti dox noonu leen ko doon defee ba àgg Badar yonent bi sallallahu alayhi wa waruwaay bi mu yoroon doon na ko awanteeg ñaar doon na ko awanteeg Ali ibnu Abi Talib ak Marsad ibnu Abi Marsad wante wax nañ ne ñooñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon bokk ak moom waruwaayam seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak worma bu ñu ko ormal tax na ñu ne ko yaa rasulallah nahnu namshi ank ñu ne ko yow yonent yàlla bi ñun daal dañu la bëgg bàyyee rek mbir mi bàyyi la waruwaay wi nga war ko te ñun ñuy dox ndax daal jekkul ñuy séddoog yow waruwaay wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca yar ba ak ñeewante ga ak xolam bu sell ba geestu na leen wax leen na leen ma antuma bi ak aqwa nii wala ana bi agna anil ajri minkuma mu ne leen ah yéen di ëpp leen ma kàttan ci dox ni ngeen mën a doxee noonu laa mën a doxe mu ne itam yiwu yàlla bi ngeen di wut ba préféré dox ci bañ a war yiw boobu lay wut kon nag bàyyi leen ma def ni yéen di war di dox ndax itam am naa kàttan ni ngeen ko amee te itam bëgg naa yiwu yàlla ni ngeen koy wute wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu doon junj foofu rek moo di wàllu égalité dafa bëgg a wax ni nit ñëpp a yem nit ñi ci ragal yàlla rek la gënantee gënante ba tax na itam lim leen doon gën gën yépp nekk itam ab yonent bu nga xam ne yàlla yónni na ko ci ñoom kenn ku ci nekk yonent bi gënal la sa ñaari bët teewul itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen delloo teraanga googu mosul woon a nangu moo leen gën waaw mosul woon mosu nangu ci biir mosu ko woon nangu ci biti moom daal nee na annaasu sawasiyatun ka asnaanil musht la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa nee na nit ñi daal ci ragal yàlla la ñu gënante mu mel ni kon muy ku mën ci doon bul foog ne mukk mukk moo la gën feeg mu ngi jël ngëneel di la ko wan ne la maa la gën bul nangu mukk ne moo la gën ndax yonent bi gënoon na nit ñi te mosu leen ko wan ñu ne yonent bi génnam googu Abu Sufyaan yëgu ko woon ndax dañ leen bëggoon a bett rek ne rinkim ci seen kaw jàpp leen nangu alal ji jàpp ci ñoom ay prisonniers yu bari wante xabaar bi raam na ci suuf ba àgg na ci Abu Sufyaan Abu Sufyaan yëg na ne yonent bi génn na pour pour kar si njëgg li nangu alal ji nee na foofu nag la Abu Sufyaan tiite daal di wax ku ñuy wax dam-dam mu fay ko xaalis ne ko nag dama bëgg nga daw gaaw demal ma makk teggil yoon wi nga daw demal ma makk soo demee nga waxal ma Abu Jahlin ak waa makk ne leen yonent bi kar na ma nangu na alal jama yoroon mu ne ko nag soo ko dee wax nag na nga deedeelu na nga mettitlu mel ni dañ laa dóor ba ngay bëgg dee xottil say yére ci kanam ak ci ginnaaw xottil sa noppi waruwaay gëléem gi nga war daggal nopp yi ba muy nàcc wane na daal eh, mbir mu metti seeni mbokk yee tukki woon jëndi woon marchandise siri ñu ngi koy jànkuwanteel te kenn tegu leen ko lu dul waa kër Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mii nag moom seytaane bu rëy la ndax ni ñu ko ko waxee alal tax na ba mu demee fenn fen wu rëy ndax ñi kenn gisagu leen kenn jàppagu leen waaye comme xabaar bi siiw na baag si pexe mii la Abu Sufyaan tëral moo tax dam-dam daw na nag jëm mag yonent bi sallallahu génn na ak i saxaabaam ñu di ñetti téeméer ak fukk ñett tolloog limu ña ña àndoon ak yonent yàlla daawuda ca xare taaluuta ba ak jaaluuta moo tax yonent bi sallallahu moom itam génn na waaye abu sufyaan ku amoon xel la te rëyle ko te muus lool ndax comme moom moo doon njiitu ñëgg moomule daan na leen jiitoo ay kilomètres pour mën a xool yoon wi lu ci nekk ci ay danger mu mën a tourné wax leen ko yonent bi sallallahu bi mu ñëwee ba fi gaa yi war a def escale yent bi ànd ak ànd ak sayidna abu bakrin radiallahu anhu bi ñu ñëwee fi gars yi waroon a def escale fi leenu ñëw bi ñu ñëwee itam xam na ne bu ñu laajee waa dëkk bi ne leen ndax njëg mi jóge Syrie agsi na wala déet suñ leen ko laajee gars yi daneen xam ne ñii kat ñoo di waa Medina te li leen tax a jóg moo di kar njëg mi nangu alal ji loolu taxoon na yonent bi ci xel mu rafetam ak ñorom tax na mu ñëw rek daal di toog ànd ak Aboubacrine toog rek déglu nit ñi ndax am na loo xam ne danga koy laaj waaye am na loo xam ne soo dégloo rek xam jarul laaj mu ñëw toog ci biir nit ñi rek jàpp njàmburam moom ak Aboubacrine wante nag yére yi ñu sol daal rafet na solin wa itam jekk na ci yiw ba nit ñi daan nañ doon nañ leen bàyyi xel ndax seen comportement bu yiw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggee benn waay boo nga xam ne dafa am problème ba am ku muy leb naan ko man daal dama bëgg nga lebal ma nangam ndax suba daal la njëgg mi di ñëw wala gannaaw suba su njëgg mi ñëwee nag ma fay la ndax yónnee woon naa ci am na marchandise bu ñu ma jëndal te su ñëwee daal danaa la ci mën a fay foofu nag la yonent bi yëngale boppam xoolanteeg Abu Bakrin xoolinu ku koo xam ne la mu doon wut am na ko moo di ne xam ne ne ñoom njëg mi suba lay ñëw wala gannaaw suba ci la yonent bi nag ànd ak Abu Bakrin dem fekki jullit ñi pour wax leen ne leen daal njëg mi suba lay ñëw wala gannaaw suba kon nanu waaj ndeke naka la ñu dëddu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Abu Bakr ca la nag Abu Sufyaan aksi bi Abu Sufyaan ak sëy daal nuyoo waxtaan ak nit ña ne leen waaw amu fi amu fi ñu fi ñëw di ñu seet ñu ne fii de am na ñaar ñaari jëmm yu rafet yoo xamante ni daal yiw nañu lool ñëw nañu fi waaye waxuñoo kenn ñu ñëwee itam dañu toog tuuti rek daal di dem wante Abu Sufyaan ko ñoroon la ndax dañu wax ne Abu Jahlin muus na waaye Abu Sufyaan moo ko gënoon muus muusu abu jahlin dafa ànd ak reewande waaw muusu abu sufyaan nag dafa ànd ak nite looloo tax ñu wute yàlla dogal bi ñu waxee loolu abu sufyaan abu sufyaan laaj na leen ne leen waaw ñoom fu ñu toogoon fan la ñu yësaloon seen gëléem ñu joxoñ ko barab bi ne ko fële la ñu yësal seen gëléem mu daal di ñëw ba ci barab bi ñu yësaloon gëléem yi mu xool fekk fa neefere yi gëléem bi mu jëlee neefere yi daal koy xar bi mu ko xaree nag gis ci ay doñ ji tàndarma ay doomi tàndarma mu ne ah gëléem ñii de waa Medina leen ñii daal yonent bi la ak i saxaabaam ndax gëléemu Medina rek ñooy lekk tàndarma gëléemi Màkka duñu lekk tàndarma ndax Medina dëkkoo tàndarma la mu ne kon gëléemi Medina ñooy lekk tàndarma kon ñii yonent bi la ak i saxaabaam foofu nag la teggee rek daal di ne dem ci njëgg mën ne leen nag suñu jaaree Badar danañ ñu jàpp kon nag nañu teggi jaari tefes ca leen teggi nag ñoom daal di jaari tefes daal di rëcc nag waaw foofu nag la Abu Sufyaan rëcce fekk nag boobu yonent bi sallallahu alayhi wa moom itam génn na eh, wante mbokk yi yonent bi li ko taxoon a génn moo di njëg mi la bëggoon a kar jël alal ji jàpp itam ñi ca nekk wante yàlla dogalu ko ndax abu sufyaan rëcc na ñibbi na màkk wante ba tey dam-dam àggagul màkk wante lu jiitu mu benn jigéen la boo xam ne abdul muttalib moo kon bàjjan la woon ci yonent bi wax nen ni jigéen jooju mu nga màkk gént na gént googu nag Urwatu bnu Zubayr moo ko nettali mu ne lu jiitu dam di ñëw nee na ndaw si gént na génn gént gu nga xam ne tiitloo na ko gént ka nag ba mu ko géntee dafa woo càmmiñam bu ñuy wax abbas ibnu abdul muttalib daal di ko nettali ne ko yaa axi laqad raaytu llayla ru'yan afdaatni wa inni axaafu an yadxula ala qawmika minha charrun wa musiba faktum minni ma uhaddithu mu ne ko yow sama càmmiñ guddi gi de gis naa ci ak gént gu nga xam ne tiitloo na ma te ragal na ni sa mbokk yi daal bu ñu moytuwul musiba bu rëy dana leen dal ba mu ko nettalee Abbas ba noppi daf ne ko nag na ko nëbbu bu ko wax kenn Abbas daal di koy nettali Walid ibn ba mu di yéeféer bu mag Walid ibn Utba itam xarit la woon ci Abbas moom itam mu dem nettali ko baayam bàyyam nag moo di Utba bokkoon ci yéeféer yi gënoon a màgg bokkoon itam ci ñi gën a noonu lislaam nee na xabaaru gént googu daal di siiw nag Makka ba mu siiwee nag Abu Jahlin daldi cay jot ba mu ca jotee nag bis Abu Bakrin maanaam ba mu bis Abu Jahlin mi toog ca Kaaba ga ak kuréel ci ay yéeféer ñu nga toog di waxtaan wante ordre du jour bi nekkuloon lu dul waxtaani gént gi nga xam ne Atika gént na ko te Atika li mu gént moo di ne rek suñu moytuwul ba dajeek yonent bi sallallahu alayhi wa duñ ca ame ndam Abbas ñëw ca Kaaba gi di wër ndax Kaaba gi lu jiitu lislaam nit ñi daanuñ ko wër di ko jaamu Sina Abbas di wër Kaaba ga fekk abu jahlin mu ngi toog ci mbooloo moomu le bi muy wër nag la ko abu jahlin séen bi mu ko séenee nag la ko woo ni ko yaa abal fadl sina abbas dafa bokkoon ci ay dàkkantalam abul fadl mu ne ko yaa abal fadl ida faragta min tawaafika fa aqbil ilayna mu ne ko yow abal fadl soo wëree ba noppi na nga ñëw dañ la soxla bi sina abbas wëree ba noppi daa di ñëw mu ne ko yow Abbas yéen seen famille kañ la am yonent bu jigéen xam nga abu jahlin ko mën a tooñ la mu ne ko kañ ngeen am yonent bu jigéen léegi daal yéen am ngeen yonent yu góor am yonent yu jigéen waaw yéen Muhammad ci yéen la jóge nee na ab yonent la léegi nag Atika moom gént na gént boobu day wane ne moom ab yonent la léegi daal yéen seen famille seen famille daal ay yonent rek a ciy génn wante Sina Abbas dafa réerantal rek mel ni xamul li muy wax mu ne ko maa ngi lay yëgal ne gént googu du tax mukk ñu décourage yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fokk mu xam fokk ñooy ñan wante keroog wax naa ko Abbas wax yu ñàkk teggin wante Seydina Abbas itam waxul dara gannaaw si gi nag ay jigéenam te mooy ñi bokk ci banu Abdul Muttalib ba ñu déggee li abu jahlin def abbas te mooy tiñal ko wax dal ci kaw famille bani abdil muttalib ñoom jigéen ñi loolu metti na leen ñu wax ñu dem ci kër abbas ne ko yow naka nga mën a bàyyee kàccoor gu mel ni abu jahlin muy xas suñuy góor di xas suñu famille bay xas suñuy jigéen nga toog di seetaan te naqariwu la defuloo benn réaction bi ñu ko yeddee itam Seydina Abbas mer na bi mu meree ne daal am na nag occasion bu nga xamante ni rëcc na ma waaye danaa ko dabaatal fan yooyu yëpp Seydina Abbas mu ngi wut Abu Jahlin ci Makka pour rek nu mu jote ci moom ba e, gàcc gi mu ko teg ci biiri jigéenam teggee ko Seydina Abbas nee na bi ma ñëwee fekk naa ko ci biir jàkka ji nee na maa ngi nekk ci wetam nee na nu ne def naa ko pour rek na abu jëlin wax ak man daal ci mbiru gént googu ba ma mën a fayu bu baax ba mën a dal ci kawam nee foofu nag la ñu déggee benn baat nee na baat baa nga yuuxu ca kaw ndeke moo di baatu dam-dam bi nga xam ne moom la abu sufyaan yónni woon nee na looloo tax li ma bëggoon ci abu jahlin jotuma ko nee loolu moo tax itam talatuma abu jahlin abu jahlin itam talatuma ñu daal di génn jàkka ji nag daw wuuti xabaar boobu nga xam ne dam-dam indi na ko dam-dam bi mu ñëwee gis nee na gis nañu ne ñaari noppi warwaayam yi mu ngay nàcc ndax daf ko xotti pour rek ñàngal mbir mi pour xabaaram gën a gën a duuf pour daal ay fenam gën a nekk daal fen yu rëy mu xotti chemisam mbub mim soloon ci kanam ak ci gannaaw mu ngay fëtamu ci suuf sa di yuuxu naan yaa alalu ayub na yaa alalu ayub nu gaalib allatimata allatima amwalukum maa sufyaan qad carada laha muhammadun ara an tudrikuha mu ne yéen waa giiru lu ay doomu xaalib seen alal ja gaaw leen jëm ca ndax kat abu sufyaan yonent bi sallallahu alayhi wa kar na ko ak i saxaabaam nangu nañu alal ja te itam xeetu mettital bu nekk ñu ngi leen koy teg kon nag gaaw leen ngeen dem xeetili li seenu nit ndax jàmbaari Quraysh musuta musuta nekk dégg nga buqat mosta ragal mosta yox yoxi kon nag alxawth alxawth gaaw leen gaaw ngeen dem xetti ji seeni mbokk foofu nag la abu jahlin jógee daal di fëgg dënnam daal di woote ci baat bu kawe ne yaa maachara quraysh yéen waa quraysh ñépp wuy si ko ca pénc ma mu daal di def discours bu rëy daal wax ne inna bna abdallah talama yudallilu abaana wa yusafihu uqulana wa farra bi adadin ila yathrib wa yathrib makka wa sham أولنا مع أبي سفيان وأربعين من فتيان قريش لقد أخذها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما أرى أن تدركوها mu ne yéen waa Quraysh jàmbaari jàmbaar yi yéen ñi nga xam ne faj gàcc rek lañ leen xame maa ngi leen di yëgal ni doomu Abdalaay ji moom sax bëgg ko wooye Muhammad daf ne doomu Abdalaay ji ndax moo bàyyu Muhammad ñoo bokk baay mu ne doomu Abdullahi ji de yàgg na sànq suñuy bàyyi ne nekkuñu woon ci dara seen diine nekkuloon diine ju wér yàgg na dof la suñuy xel ne ay nit la ñu nga xam ni wéeruñu suñu xalaat matul ndax bu matoon duñu jàmm xërëm moom de xëy na di woote fii ba jikki mu génn dëkk bi yóbbaale suñu doom yu bari yóbbu leen yasrib te yasrib xam ngeen ne dëkk la bu nga xam ne mu ngi nekk diggante makka ak sham suñu alal ja nag joxoon leen ko abu sufyaan ak ñeent fukki waxambaane ci waa quraysh muhammad kar na leen jël na alal ja kon nag li ma bëgg moo di nanu armé dem nangu ji suñu alal keroog kilifa yu bari génne nanu alal joxe ba pare armé ànd ca soldaar ya war a dem ba mu des kilifa gu ñuy wax Umayyatu bnu Xalaf keroog dafa joxe ngant ne daal moom yaramam neexul du mën a dem wante bi ko Abu Jahlin déggee dafa ànd ak délégation bu takku ci waa Makka daal di ñëw ba ci Umayyatu bnu Xalaf daal di koy yekk lu ne ne ko ngay kilifa ci mag mbir mu rëy nii am kilifa yépp mënatuñoo lekk mënatuñoo naan ndax gune gu ndaw nar ñoo gàcceel nar ñoo toroxal nga bëgg a toog fii ne doo dem fenn bëgg fee des yaa xale yeeg jigéen ñi bu fekkee daal lii nga bëgg àndu xale gi nii nag demal nga wuti cuuraay nga cuuraayu na xam ne jigéen nga fii daal ku fi des rek jigéen nga wax boobu nag jam uma yetuk nu xalaf ci xol ndax ñoom ay ceddo lanu jom rek lanu xam mu daal di jóg nag armée wu nekkoon du ma fi des Umayya moomu nag moom moomoon Bilaal moo ko doon dóor dóor yu metti moo tax ñu ne lam yataxallaf ahadun min ashrafi makka illa abu lahab ñu ne kenn desatul nag ci notable makka yi ku dul abu lahab moom rek moo fa des ñi ca des ñëpp ñoom armé wu nañu fas yéene ànd ak abu jahlin wante nag ñu ne abu lahab mi demul wante yebal na benn jàmbaar ju ñuy wax Aas ibnu Hisham moom la yebal Aas ibnu Hisham itam kilifa la woon moo remplacé Abu Lahab la tax nag mu yebal ko moo di ne daf ko yore loon bor Aas ibnu Hisham dafa yore loon Abu Lahab bor mu ne ko soo demee remplacé ma bor bi nga ma yoreel dana la teggeeku ba pare itam mu joxewaat amende lu tolloog dégg nga eh, juróom-ñetti téeméer ci dërëm waaye ci dërëm yooyale ñu ni waa Makka préparé wu nañu lu tolloog ñetti fan am na ñu ne ñaari fan ñi amul woon doole ñi am doole dimbali nañ leen ku amul woon jaasi wutal nañ la ku amul woon fas wutal nañ la ku amul woon lool lekk am na ñoo xam ne génne nañu budget bu réy pour financé yoon wi yépp ale retour moo tax ñu ne mbooloo mu bari ci yéeféer yi jóg nañu di encouragé jullit ñi di leen ñaax di encouragé yéeféer yéeféer yi màkka yi di leen ñaax pour ni na nu dem xeexi am na ci ñu nga xam ne nag ñoom alal leen yàlla dénk ñu ngay jël seen alal di ko génne pour joxe pour rek euh, dara bañ a ci yoon wi wax nañu ne itam lu jiitu ñuy dem def neen seen yëfi ceddoo te moo di li ñuy tuddee aslaam waaw te moo di seet ndax seen yoon dana neex wala du neex ñu dem ci seen benn xërëm bu ñuy wax hubal waaw am na nag nu ñuy bind ci laa ak naam bu fekkee bant ba ñu génnee dafa bu fekkee bant ba laa leen ci bind mooy seen yoon wi tey du baax su fekkee naam leen ci bind seen yoon wa dana baax waaye keroog de ba ñu génnee seen i bant bant yépp laa moo ci nekk pour wane ne tey seen yoon wi du baax loolu nag correspondé daal di eh, dëggal gént ga nga xamante ni atik géntoon na ko mu mel nii mu mel nii Hubal xërëm la woon ci ñoom fa nu demoon lu jiitu ñuy jën dëkk bi pour seet ba xam ndax seen yoon dana neex wala du neex waaye mbokk yi foog naa ne seen yoon neexul wante moom ku repp kenn mënu ko téye takku nanu ànd nañu ak Abu Jahlin am na fukki boroom alal ak ñaar ci ñoom kenn ku ci nekk génne nga budget bu rëy pour yoon wi ka ca njëkk moo di abu jahlin ka ca topp di utba ka ca topp di shayba ka leen ñeenteel di xakim ibnu xidaam te leen juróomeel di abbas ibnu abdul muttalib moom kat abbas mi bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jur fóori bu mag boobu ñuy wax ablaay ibnu abbas wante kon ci début lislaam la na ngeen ko bàyyi xel moom abbas mi ak ku ñuy wax abul baxtari yi moo ko jur moo leen juróom benneel ki leen juróom ñaareel di zamatu bnul aswad ki leen ki leen juróom ñetteel di ubay ibnu xalaf moom mooy ki nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masaray yonent bi benn nit la masaray mu di ubay ibnu xalaf mii ki leen juróom ñeenteel di umayatu bnu xalaf mooy ki moomoon bilaal ki leen fukkeel di nadru bnul xaarit ki leen fukkal benneel di nabi ki leen fukkeel ak ñaar moo di euh, mu nabbe ñoom ñaar nag doom lañu ci xajaaj ci ñoom la yàlla wàccee aaya bi di wax ne inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillah fa yunfiquunaha thumma takunu alayhim xasratan thumma yuglabuun yàlla nee na wér na ni ki gaañ nga xam ne wet weddi nanu ñoom de ñu ngay dépenser seen alal pour nangurum bëgg a wëlbati nit ñi ci yoonu yàlla nee na wante seen alal jooju de ñu ngi koy dépenser ci ak perte te itam du ñu mën a gañe kenn aaye bi dafay continuer ba faw gis nga ñuy xeex lislaam di jël seeni alal di ci def dañuy sonn rek dañuy dépenser bay bëgg a dee te du mujj fenn fokk mu yëkkati kàddoom gi fokk mu ci kàddoom gi parce que yàlla ko garanti moo tax ñoom abu jahlin ak li seen alal di bari bari yépp ak li seeni pexe di bari bari yëpp taxul ne daal ñoom ñëpp ci perte nga rek leen mujj moom la yàlla nettali ci aaye bi ñu ne waa Quraysh génn nañu ànd ak jigéen ña ànd ak jaam ña jox nañ leen tabale yi waykat yaa ngay way borom baat yu neex ya waaw artistes yi daq way génne nañ leen moom kay tabarakallahu cortège bu am solo abu jëlin jiitu ca kanam jaam ya ñu ngay way ndënd yaa ngay tëgg tabala yaa ngay jib ñu ngay way wàccuwaay bu ne fu ñu def escale rey fa ay gëléem wax ne ni itam ñoom àggoon nañu ci juróom ñeen fukki juróom ñeenti téeméeri soldaar ak juróom fukk wax na nitam seeni fas téeméer la woon seeni gëléem àggoon na ci juróom ñaari téeméer téeméeri fas ak juróom ñaar téeméeri gëléem yonent yonent bi sallallahu alayhi moom defe naa ne ay gëléemam bariwul woon juróom ñaar fukk la fas ya di ñaar te yéen woon nag seen drapeau ba moo di Saïb ibnu Yazid ñuy génn nag di tiitaru di wane ni am na nu alal am na nu doole yàlla nag di wax yonent bi sallallahu alayhi wa di ko wax ne ko bu leen mel ni mukk yéeféer yi la nga xam ne puukare rek a tax ñu génn di wane seen dooleeg seen alal danaa leen wante ne leen amuñu doole amuñu alal yàlla ne wala takunu kalladina xaraju min diyaarihim bataran wa ri'aa annaas wa yasudduuna an sabilillah wallahu bima yacmaluuna muxiit moo tax ñoom yëfër yi dëgmal nañu badar ànd ak mer mu tar ànd itam ak yéene bu ñaaw ci jullit yi ndax foog nañu ne daal bu leen jàppee danañ leen ray ba ñu jeex tàkk mere nañu lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam caravane bii di caravane bi nga xamante ni moom la Abu Sufyan jiite woon te moo di njëg mi jóge suri yore woon marchandise mu bari ñoom rëcc nañu te ba tey mbir mu rëy am na ndax Abu Sufyan rëcc na mu nga jëm mag Abu Jahlin moom génn na pour dabu si kon juyaloo am na léegi Abu Sufyan daal di yebal ku ñuy wax Qays ibnu Murri euh, ibnul Qays mu yebal ko pour ne na dem ci abu jahlin wax ko ne ko moom mucc na